waaw li may wax ci loolu daanaka du bëri parce que yaakaar naa ne jamono ji ñu toll waroon nañu xalaat def yeneen sorti yeneen wax yu bokkul ak wax yooyu noonu ñu yëkkate parce que tey ku xool le président Macky xool si contexte bi mu nekk instant bi si mu eh, contexte dialogue national di jéem a apaiser climat social bi ñu nekk ba tey jii rek ñun dañuy féliciter d'abord rencontre bi nga xamante ne yàgg nañ ko Sénégal yëpp yàgg nañ ko sàkku yàgg nañ ko bëgg muy retrouvaille président Macky Sall ak le président Ablaye muy wane ne Sénégal fi mu toll nii lépp lu ñu wër mooy jàmm kon mënuma gëm ne nga nekk jeune nekk ci parti politique wala nga nekk ci mouvance présidentielle jamono ji président de la république nga xamante ne mooy le président de la grande majorité présidentielle nekk ci domaine boobu yow ngay génn ci beneen angle boo xamante ne ñun ñëpp xam nañ lan moo ko wundu ñun ñëpp xam nañ lan moo tax nit ñi yëngatu ci jamono jooju. parce que nag dafa am ay responsable yoo xamante ne xam nañ ne xam nañ lu ñu mëne te xam nañ ne fa ñu jëm. ñoom mënuñu faa egg ndax la président Macky Sall soxla ñoom mënuñu koo def kon dafay dafay daf mën dugg ci ay ginnaw jeune di len monter di len pousser ñuy jog di jëm ci ay def ay attaque diko ko jëmale suñ ko xamantene moy suñu coordinateur départemental muy le ministre Elage Hadj Omar Youm mu am ay jeunes yu dekk biir commune Mbour wowe seen bop majorité présidentielle ñu gis ci ay jeunes yo xamantene nam amnañ ci bokku parti APR mais am na ci ay yeneen jeunes yu bokk si yeneen parti yu mel parti socialiste wala parti UCS ma leen di xamal mbala may attirer ça. attention c'est une responsable que ne leen ñu recadrer jeunesse Nous recadrer cette jeunesse parce que nous permettons permettre les jeune bien vrai que bokk nga mouvance présidentielle nga taxaw fa nga taxaw di accuser wala ngay attaquer ay responsable yu bokk APR parce que nous sommes dans ci coalition tamit dañuy respectante dañuy respectante joxante jër ku ne respecté sa morom ku ne respecte sa parti ku ci am sa problème na nga dem sa biir parti nga res nga lijjanti ko fa mais bu taxaw sa biir parti bàyyi say responsable dem ci bee responsable parti APR ñoom da nga leen di attaqué waxuma ngay attaqué ki nga xamante ne tey jii mën naa ne moo fii suñu président Macky Sall parce que mooy la le coordonnateur départementalu APR fii ci biir mbuur kon ku ko wokk dafay mel ni parti bi yëpp nga wokk te fii kenn mësul dégg benn jeune bu bokk APR bu taxaw yëkkati ay kàddu yu ñaaw ko ci responsable bu bokk ci benn parti bu présidentielle au conseil des collectivités locales Nous avons ko le feu président Ousmane Tanordien est-ce que nous avons génn dégg jeune bu dëkk biir commune Mbour wala bu dëkk biir département Mbour def ay sorti diko attaquer parce que def taxawul fi wala taxawul fële kon lolu ñun buñ ko mësul def kon nañu recadrer seeni jeunesse na responsable yi nga xam ñoo bokk vice présidentiel ñu wo seeni jeunes wax ak ñom parce que dootuñ leen may ñun jeune yi APR benn jeune bu bok ci benn parti di attaquer suñuy responsable di leen wax nak su dul noonu waaw xam nga problème emploi problème Sénégal yépp la

manam amna ku nek ci politique amna lo soxla am nga fo bëgg ñu lañ fa nañu taxaw ci côté politique ñu jakarlo ak suñu responsable waxante ak ñoom suñu biir ne parce que fotum biir néeg la ñu tok waxtaan ak suñu responsable ku ne xam lan moy sa soxla ñu taxaw ci jëm ci dox mais do taxaw ne na na ministre bi ni wala nama DG bi ni jox liguey par la force melni que ay jeune yi fi nek yeneen jeune yi deful politique amuñu droit wala amuñu chance pour wara mëna am am liguey fi suñu rew